bismillahi rahmaani rahim rabbi asrah li sadri wa yasar li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum monsieur le président maa ngi lay nuyu monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seen collaborateur yi ngeen àndal di nuyu sama mbokku député yi euh, tey nag fi may tàmbalee mooy ci ñoom laay njëkkee doog a ñëw li ma dégg léegi kàddu yi fi jóg mën naa ñàkk ndax damay faral di wax ne régime Abdoulaye Wade kenn mënu koo wax tudd ko ba mu jeex ci tuddoo ci président Macky Sall ndax fukki at la ak ñaar juróom-ñeenti at yi ñoo moom ñoo ko ànd ca juróom-ñeenti at yi li gënoon a foot ci nguur gi moo ko yoroon mënoo koo tudd yi tamit ca tuddoo président Moustapha Niass mi ndax nekkoon na premier ministre bu Abdoulaye Wade mënoo koo wax ca ñi ëpp ci salle bi tuddoo leen ndax fii ay ancien ministre de Abdoulaye Wade rek ñoo fi nekk ak ñoo xam ne ay ancien député de Abdoulaye Wade ak ay ancien directeur de Abdoulaye Wade kon tey jàpp naa ne su ngeen dee wax ñenn ñi dañoo nekk ay ndaw xamuñu lu xew waaye su ñuy wax am na ñoo xam ne fañ toog yéen a ngi leen di rey ci yëgu leen ko moytu leen yenn yi ndax euh, damay wax ne laissez l'orateur parler s'il vous plaît lu ci baax moom Macky Sall la ko ànd waaye lu ca safaanoo ñoom ñaar ñoo ko bokk kon mënu leen a seetal président Macky Sall ca xam nga yéen seen coow a bari wax naa leen ko nee naa leen président Macky Sall ñun bañ koy xam booba yéen ñi ñu fi bari ci yéen xamuñu kuy président Macky Sall ndax booba fëloogu waxoon naa leen ko ne leen bis bu ñu dajee man ak yéen ak moom da ngeen xam ne man la gën a xam ci yéen. loola leer na naa nañ keroog bañ dajee Touba ba ñuy def euh, autoroute ila Touba ba mu ñëwee nuyuwu leen man la taxaw di waxal loolu day wane ne loolu day wane ne nun bañ koy xam yéen xamu leen ko kon tey su ngeen nekkee fii de tey di wax da ngeen a xamul lu xew président Macky sàll xam nga ñàkk ab gis-gis bu leer rek mënta weesu lii ndax euh, tey jii nii nan nga mën a jëlee saret bi jiital ko door a indi fas wi kii tey ji fi mu doon gën a amee sens mooy ñu voté woon ko avant ñuy voté budget yi ci defuñ ko dañoo bàyyi ba voté budget yi ba pare door ko indi nii tey pour ñu voté ko pour que naan léegi euh, au lieu muy tàmbali léegi la premier janvier mais mu commencé le premier avril loolu ñàkk gis-gis bu leer bu président Macky Sall am moo waral lii tey euh, loolu lépp nag fi may ñëw rek mooy nax na askan bi ba toog ci bopp réew mi tey jii ni askan bi ñu ngi dund tey ay jafe-jafe tey boo jëlee tey bidon liw diwlin bi nga xam ne mi ngi daan jar treize mille cinq cent tey mi ngi ci vingt mille francs boo jëlee tey saakub ceeb bi daan jar douze mille cinq cent tey mi ngi ci quinze mille francs muy ceebu risaatol soo jëlee tey euh, ceebu parfumé bi nga xam ne dix-huit mille la daan jar tey bi mu faloo tey nax na Sénégal yi yokk na ko tey mi ngi ci vingt-trois mille ca loolu waxu ko woon Sénégal yi saaku soble importé 25 kilos bi mu ngi tolloon ci 6500 tey jii nii bi mu faloo tey yokk na ko ba 9000 francs kon monsieur le ministre waxal Macky Sall ne ko Sénégal yi dañu sonn fatigué nañ boo jëlee tey kilo meew mi ngi tolloon ci 1675 tey mi ngi ci 2200 loolu waxu ko woon Sénégal yi bi muy falu boo jëlee tey jii ciment tonne bi mi ngi tolloon ci mille tey yóbbu na ko tey ci 64000 loolu waxu ko woon Sénégal yi bi muy falu dafa leen a digoon ne day wàññi mais digu leen woon ne day yokk boo jëlee gasoil litre baa ngi tolloon ci 595 tey yóbbu na ko tey ci 695. boo jëlee tey jii essence 695 la woon yóbbu na ko tey ci 795. tey jii mu doon ay jafe-jafe yoo xam ne askan wi ñu ngi koy dund tey waxal président Macky Sall ne ko askan wi dañu sonn askan wi dañu jaaxle ndax ay jafe-jafe tey jii nii indi nañu tey ci jamono boo xamante ne tey facture courant yu seer yoo xamante ne tey ku daan fey tey fukki junni tey ñaar fukki junni ngay fay loolu ba muy campagne waxul woon loolu Sénégalais yi dafa nax Sénégalais yi ba falu tey bi mu faloo tey jël ay jafe-jafe ak i métti tey teg ko ci bopp Sénégal yi boo demee waxal président Macky Sall de ko diggéewul woon li bi muy fal tey jii ni boo xoolee tey sunu entreprise yi tey maanaam daanu nañu tey entreprise yu bari tey dañoo feebar tey jii boo gisee tey tey ci suba rek dégg ngeen entreprise yoo xamante ne ña ngay dàq seeni emplois ngir ay jafe-jafe te dara warul ko lu may tey tànn étrangers yi li nga xam ne mooy tubaab yi Turquie ak yooyu di leen jox marché yu mag yi Sénégal yi ñu xañ leen ko ba tey jii entreprise Sénégal yëpp tey ñu ngi sukkuraat tey boo xoolee tey jii nii ku bëgg. merci beaucoup vous remercie